jërëjëf Abdoulaye Diop euh, jërë ngeen jëf Passepartout Maysa Mbaye jërë ngeen jëf internet ak euh, édu euh, auditeurs yi nga xam ni yéen a ngi bàyyi xel seen rajo RFM la rajo de toute l' actualité yéen a ngi seen journal de faits divers xalaas ànd ceeg Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye Bane maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar ziar Ndiaye ak Passepartout ak auditeurs yi. ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkk ci ñoom yal na yàlla def jàmm ci réew mi jàmm def ko ci xel yi xol yi kon amin yàlla na nga yàlla am jàmm. <laughs> ku nuyuwul amin yàlla na la yàlla diw jàmm ji. ba forom rek bàyyi fa jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin Aba. maa ngi lay delloo seer gi bu baax. ngeen def ak coono yi. ñoo ngi sant maa ngi nuyu waa Sénégal. Mm. Euh, nuyu naa ñëpp daal. bu may xalaas bu neex raw na ko. raté xalaas bu ndaw lu cinq. xalaas bu ndaw. réew mi ko bu rëy raw raw na ko. réew ci. ñu waaw parce que ndaw so bañ ko woowee dafa weddi lépp. Mhm. dégager lépp ne xale bi daf ko jëloon pour jël ko comme jànq. xale bi ne ko jëloom comme jànq falaa jël ñëw ba mu ñëwee ngeen ma tëj ci kër ga 15 jours laa fa def. wàcc serviette nga ba doon doye ak di maase nit ñi pare ku ku maase woo pare def massa massage plus. Mm-hmm. voilà budi budi voilà muy moom daal mu moom nee na mu naayef bañ dugal ko ca wooyee Njaay mu naayef bañ dugal ko ca. nee koy wax. budi <laughs> ndaw si daal nee lu ma maîtriser laa lay wax xale bi da <laughs> bi naïve na naïve na bañ dugal ko ca. mu jëlee ca ëmb. wallaahi. Ban yaa am solo waay. dégg ko wax maa ma cee sori. non loolu sax damay ñu fekk mu jeex. Ah. Mm-hmm. dégg nga xale bi daal naïve na bañ dugal ko ca mu jële ca mu jëlee ca ëmb retourné wax ko ndaw si ndaw si bëgg a dégager ay responsabilités après ndaw si doon na ko wax sax naka la ñuy def pour ñu yàq ëmb bi. léegi bi ko passe partout wooyee ay tout dafa dégagé woon lépp ni weddi ko mais ci biir bi ñu ko doon continuer di wax ak moom moom dem na ba accepte ko léegi dama lay indil bi muy wax ak ndaw si pour préparer pour xool conseil ko nu ñuy def pour yàq amu bi. maanaam borom salon bi. waaw bi muy wax ak. femme booy ba fa demoon. te ëmb topp ko fa. Mhm. bisimilah déglu ko. ba léegi. te eh, yow xamoo benn docteur boo xamante ne sax dina mën a dem ci mu négocier yooyu noonu mën la ko dindi. Ah, man de am na ku ma mu naan am na benn paa bu koy dindi kooku moom automatique la koy def mu koy dafa lay dañee waaye moom li muy laajte dafa cher. waaw. Hmm. Ah, kooku mën na ko automatique la koy def waaye moom li muy laajte daa cher. paa bi nga nekk. paa bi xam nga daal nekk benn kii moom moo ko woowal waxal ma wax ko mën na ko nee na daal bu ñëwee automatique moom dama koy dindi. waaye moom cent mm-hmm. mm-hmm. mille moom tàng na de. cent mille franc bi ñaata at ñaata kii ñaata weer la. a yem normalement. Ah. Ah, kon kay loolu dina gaaw a dee. léegi damay def xalaat a wóor de bu dee moom danaa dem def xalaat yi moo gën a wóor. en tout cas eh, léegi moom la dañu ne bu dee ñu mag bàyyee ku ko moom. bu fii bi daal moom xamoon naa ne day tuddee am boobu noonu bi ma la waxoon noonu nu mu tuddati. Hmm, xam naa nu mu xaw moo moom moom moom. léegi waaw mën naa la laaj mais sama grand frère bi daa nekk au courant. lan. sama grand frère. sa grand frère bi ah, am na ko. woon sax naa ko jox sa numéro mu woo la. dafa obligé woon ne naa ko jox sa numéro mu woo la man ko non man ma dinaa ko woo. ah man de man maa ngi def li ma mën parce que man nee naa la lii am na benn gel boo xamante ne. moom loolu loo ci di ko xam waaye yow bu fekkee ne daa dëgër ba mat deux mois xam naa ne loolu du ko mën a dindi naa la ko ba nga baxal ko ba pare. baaxal ko mosoon na ko boobu kay naan naa ko naan ci ko def naa ko naa lu naa koy naan. waaw. doo laaj paamaara yi boo xam am na paamaara yoo xam ne dañuy am ay ren yoo xam ne amoon loolu xamoon ñu bëri te aussi nekk ko nga wax ko say problème aussi mooy loolu day dem ba egg koo xamutoon koo bëggutoon ma yegg waaw waaw loolu te doon na moom man de maa ngi laajte ku ma xam maa ku ma xam maa koy laaj mais waxagul ma lu leer daal parce que loolu daal lañ ma waxoon te bu ma ko waxee après ci laa la a ah. waaw man na waar de mm-hmm. ah bii nag yéen a laajte ba xam rek man de moom bi ma ko waxee ba léegi ma xam na laaj ko ba dañooy naan sax est-ce que yaa ummat yooyu naan. Ah, loolu kay bi ma ñu ñëw si sax moom sama yaay gi sax dañu ñu normal jeex normal sax def ko woon. Ah. ma xamoon ne loolu lay ne exactement kay xalaatu ko woon sax tamit ni nga waxee waxee ak man aussi comprendre ba. exactement ci liggéey lan ndaw saa nga trouver solution pour xool naka la def pour yàqu léegi man xam nga luy sama question waaw mooy moom bi mu fi ñëwee vendredi di weddi ak di wax ne xamu ko woon et booy bi bu fekkente ne dafa dem taxawaalu ba ëmb. Mm-hmm. na ñëw mu jàppale ko moo gën. Mm-hmm. xanaa moom tegal tegal la leen koon lii. boobu tegal la gunge ko après nag lañ ko après bi mu xale bi ñëwee ci rajo bi. Mm-hmm. waaw après nag dafa ba ba ba Matar woo ko mu weddi complètement weddi complètement euh, dafa doon woo xale bi jigéen bi xale bu jigéen bi jëlu ko. ñun ñu woo ni xale bi jigéen bi ni ko su la ndaw si wooyee wuyu Eh, bi ko ndaw si woy wuyu ko mu ko doon wax lu tax ngay dem ca rajo ba nañ jéem a trouver solution bi mu weddee ni moom du moom ba pare mhm. ni du moom da ko doon liggéey loo comme jànq affaire yooyu après dafa retourné woo xale bi ko lu tax ngay dem rajo pour dëggal ni ëmb bi mu xale bi ëmb foofu la ko ëmbi même su fekkee fukki fan ak juróom la fa xale ba def rëcc daw génn bàyyi léegi li ma ci message bi may lancé mooy xale bu jigéen bii njaay suñ ko jàppalewul hmm. maa ngi koy répété dina xaru mbaa su amee doom dina ko faa dina ko sàkkal pexe ndaxte benn mbokk bi yëgul ni xale bi dafa ëmb ëmb deux mois jamono jii déglu ko. aja waaw Fatou. oui. Fatou li nga def nii li nga def waroo ko woon def di Fatou. lan moo tax di def bu nga amoo problème rek ma woo pour ma jàppale. problème fan laa ko hmm? fan laa amee ay problème man. loolu yëpp garaaw loolu yëpp wax nañ ko ba fii. koo amee problème ak. ou bien dama laa fenal. moom moo tax ma lay naan ndax dama laa fenal. loolu yëpp waxuma ci mais ma. ci loo waxatuma ci sax li may wax mooy nan la ñuy def pour pour ma jàppale la nga xool noo def loolu rek moo tax ma lay woo parce que Matar woo na ma ba tegal na lépp. c'est vrai ma am problème problème bi sa kër laa ko amee tamit man ma am problème kay loolu xam naa ko moo tax ma. jaraloo ma ay fen aussi yàlla la gënal kon nag jaraloo ma loo wax rek xamal na ko dëgg si man. lu ma vacciné lu ma waaw waaw. léegi yow lépp nga yow. man wax naa la ko ba yàggul noonu def naa samay kii ba sonn aw ma ci beneen pexe kay may woote wàllu tant que aw ma ko ma léegi yow léegi yow mën naa ko ko yow la. loolu kay biir bi ma ko gënal xalaatuma ko sax. xalaatuma ko sax maa dina yàlla. mais man laaj naa la bi nga wax ma say xalaat yëpp de ni nga woo nga paa bi paa bi ne la. mais mais li gënoon li gënoon li gënoon balaa ngay dem mënu ma ko ah. man de laaj naa la laajaat na wax nga ma say conseil wax nga ma say li nga man li nga xam man tamit essayé naa gisuma dara benn résultat bu te chaque chaque. nga yi moom sama xam-xam du see jox maa ngi déglu daal sama ay conseil ku ma conseil instant moom laay déglu sauf garde. léegi yow am na wul deux mois. deux mois kese laa toog sans gis sama ay règle lu may ñëw fekk ba bu samay règle setut deux mois juillet ak août bi laa xam ne gisuma samay règle waaw. Hmm. kese. léegi yow xam nga nan lay def. Mm-hmm. léegi toogal ma déglu ma. da ngay day wax. yow gisal ma déglu góor. maa xam ne ko heure bu jàll rek affaire bi da ngeen di développé te développement arrangé wut. day dem ba tool foo xamante ne instant yi sama risque lay doonati. sama bakkan daf lay fekk daa muy dépassé fii nag ma teel la xam ne laay def ak moom. deux mois yi ba mun ma ko dépassé sans pour autant ma jëm sama kaw non non. léegi da ngay bàyyi ma woo ma tar après ñu ci dugg solution da nga bàyyi ma jaay. waaw baax na woo ko. léegi nag da ngay demaat ma jaay di ko wax ak say problème léegi li service privé warul tax nga di ma jaay ma jaayal la. damaa wut solution ba sonn di wut solution solution laay wut di solution laay wut ndax su ma toogee croiser les bras aussi xam fan laay jëm ak moom. mais solution kan du ko wutee noonu la Fatou solution moom kan du ko wutee noonu. sama solution si yow la woon wax nga ma li nga xam ne man tamit essayé naa li ma gisuma dara benn résultat tamit man nan laay def leneen nan laay def. léegi yow boo nekk nii. man maa ngi fi may liggéey laa nekk nii. ci salon nga nekk salon de massage. salon de massage naa koy déggati rek day na sëkk. benn biir kër la nekk. waaw na léegi dinaa woo Matar ñu jéem a xool solution bi ñu teel solution mais bàyyil ma jaay nga may wax bi ngir yàlla nga may wax bi. wax dëgg waaw woo ko ak nu mu gën a gaawee lu solution aussi nu mu gën a gaawee instant yi moom xajatul ma fenn parce que bu dépassé fi nit dañuy comprendre solo ma kenn ku comprendre. baax na dinaa woo Matar nii nii ah parce que euh, histoire bi ña luwee ca kër ga ak ña dëkk ca koñ ba ñooñu ko alerte te ba affaire bi jàllee léegi njaay mën naa ni dëkk bi yëpp lii fa am parce que quartier bu ne ña ngi fay woo passe partout quartier bu ne ci dëkk Ndakaar laa wax de foo laal ña ngi fay woo passe partout babal yow mën naa mën naa laaj benn laaj yow passe waaw lan mooy seen intention ci lii fi ñu toll nii pour que lii dañ fi parce xam nga lu tax mënta dañ nga ni du dañ am doon arrangé wu la. dafa am bayeer buy wax. kër gi. dama ciy def ni maanaam luyu ma koy jaay boppam. Euh, boo ñëwee bu location nag. non non ma ma laaj la lan ngay lan ngay liggéey nga wax ma ni ma nangam laay liggéey. pour maanaam ma mën a garanti sama location quoi. man ngaa luyee man ngaa luyee ni dem ba ca biir su ma yor beneen beneen jiko boo xamante ni peut-être ñi nekk ci koñ bi. ñu fa dëkk. daan waay bi njëkk a signalé que ni bon bi am na fii. ñoo xamante ni dañuy dañuy def dañuy def seen dañuy def massage te yëguñu ci massage. bi mu waxee loolu ma ne ko man loolu yëguma parce que moom bi ma koy luyee moom bi muy dugg. dañu ma man hôtel lay liggéey léegi mu ne ma euh, man hôtel lay liggéey léegi des fois damay ay sama client yoo xam ne dañuy ñëw kër ga ma leen di massage ma ne ko man luyuma koy jaay boppam. Mhm. laaj naa wax euh, euh, discuter nañ ci lu war a mat ñett ba ñeent yoon. ñëw naa ba ci moom ma taxaw ni ko libéral appartement bi. parce que euh, maanaam yow même ñi nekk ci koñ bi des fois dañuy jëw jaawale euh, appartement am ak yeneen yi di leen sonal comprendre li ma la. maanaam client mi quoi. client client nekk ay boroomi kër la ñu comprendre li ma la. Mhm. mais nag wax dëgg yàlla nit ak ak vie privée man kooku wax dëgg yàlla li ma ci man bëriwul mais nag li man li nga xamante ne moom laa ko dugalee loolu rek laa mën a laa ma laa rek laa fay jàppee quoi. bu ma demee nag ba changement itam ñëw naa ni ko na nga na mais xam nga génne locateur aussi dafa yomb. Mhm. parce que locateur pour pour pour nga génne ko fi mu nii pour nga mën ko man bu pour ma génne locateur da nga dem jël UG dem tribunal boole ko ñoom seen bopp boo xisee nekk ci ci téye seen xaalis ñu la fay quoi xam nga loolu la. Mhm. ma difficulté yi ñu ciy dund moo bari. donc donc loolu loolu moo tax yow mënoo ko woon génne. maanaam ni génne bi muy météo quoi euh, euh, euh, mhm. xam nga problème génne loca locateur dafa yombul mhm. parce que parce que xam nga man bailleur la damay loué façon client bu ne damay daje ak moom amoon naa fa ay client yoo xamante nii dañuy da ngay encaissé ba dugal ba ba pare ngay mhm. doog a xam jikko yu client yi waa xaar xaar mu parce que dafa mel ni lii nii ñoom waa ko mës nañ la ko signalé signalé nañ ma ko bu nëbbu de signalé nañ moo ko bañ ma ko signalé sax kanamu gendarmerie bi bu bu bu noo xoor boobu lañ ma ko signalé ci kanamu commandant bi. Mhm. lañ ma ko signalé. Mhm. mais boo ba problème bu ñu fa yóbbu quoi biñ ma ko signalé nag laa xam ne kon ndaw si mi ngi def leneen. Mhm. mi ngi def leneen ci bâtiment bi. gis nga man pour mu luwee maanaam koomul koomul euh, euh, góor goomul jawar wala wala jigéen joo xamante ne maanaam amul jëkkër. ñaareel li mm. e ma koy def bariwul mais parce que ñaareel bu ma ko li ci gën a bëri bu ma ko defee dama ci am problème. comprendre nga problème bi mooy bon peut être dañ ko dund dund goo xamante ne du ma neex bi ma ñëwee maanaam bu ma bu ma duggee maanaam façon sol yi ñuy sol xam man magum jëm laa du ma ko ne da nga xam ni ñii maanaam di nit ku ku ku yiwru du solow nii quoi. comprendre nga parce que nag wax dëgg yàlla man dama dul avancer ci vie privée jàmbur. parce que koo xamante ni bi muy def. Euh, moom la concerne yu fi kiyam la man dama ci dul nango avan avancé ci euh, ci ci ci vie privée jàmbur quoi mhm.